asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñuy suivre ci Sénégal dakaar Média ñu leen sant bu baax a baax di leen bëggee di leen wax ni li ñu bëgg a waxtaan ak yéen man Galaye Talibé Bamba ku ci bëgg looy suivre rek bàyyi ñu xel fii ci dakaar Média di wax ni dina leen fi defal wala yaakaar na ni dina leen fi defal émission yu ndar képp te neex lool jàpp ni war naa mën a dugg ci seen xol waaye noonu la ñuy sante yàlla rek julli ci yonantam ba di nuyu képp koo ne foo nekk rek ñu lay tàllal loxo di la jaajëfal di la nuyu di la sargal di bu ne kurus rek bàyyiwuñu kenn ci benn per noonu la ñuy sante Serigne Mountakha Mbacké di ñaanal suma waajur bu jigéen bi fi des suñu borom yàggal ko fi ak bépp waajur di ñaan suñu waajur yi dëdd suñu borom xaar leen àjjana defal leen tawfeex fañ nekk fàggul leen këruk àjjana si noonu la ñuy bëggee nag képp kuy bëggee Galaye Talibé Bamba ñu ngi fi ak yéen ci Dakar Média tey ñu fa yéene si xëy yéen waxtaan boo xamante ne dañ leen di bàyyi seeni xel dañ leen di bàyyi ak seeni xalaat ci bépp camp bu ñu waxee faas wax ndaanaan wax université bu ñu waxee faas wax école bu mag bi ndax sampion boo dégg jaar na fa kon Fass université lañ koy tuddee ci làmb ndax tey dañ ne Fass moo jur Pikine ak géejawaay tey bu Fass ak géejawaay daje loolu njariñam la war a doon ñan lañu boole ñaari xale yi am fulla am fayda am jom wane woon seen bopp fas yéene wane waat seen bopp la 14 janvier janvier nag nekk na ci bésu làmb yoo xamante ne ci taarixam lu ñuy marqué la ndax bu ñu nee le premier janvier dañ ci daan taamu combat yu mag gis nañu ren premier janvier 2024 combat yu neex combat bu neex tëj ko it ci Boy Niang Modou Lo waaye dañoo ñëw ci la 14 muy fukki fan ak ñeent ci weeru janvier Kandji Production boole ci lagros Rose de Balla lagros nag bu ñu ko waxee xel day dem ci ndaanaanam xel day dem ci fugoom xel day dem ci gëm-gëmam ak bëgg-bëggam ndax lagros rek moo fi nekkoon ci xale fas bu siwaat baatu Moustapha gay boobu mu daan wax naan je tac je cogne et je kon nag bu ñu waxee je tac je cogne et je gagne daan ko woon doxee bëre fekk champion yu bari daan leen jëli et cetera kon tey Lac boobu la ñuy wax ni moo dellu siwaat waaye Lac Rose dellu seem gis nañu ñaari sorteem yi mujj na mu demee waaye fils de balle bu ñu ko waxee xel dem ci père Balla Gaye Ndour xel dem ci école de lutte Balla Gaye xel dem ci Balla Gaye waaye dafa ne ñooñu ñëpp dama leen effacé man Fils de liggéey sama turu bopp te wane na ko ci njàmbaaram Fils de Balla sorti yoom yu mujj yi ku ne gis na ni combat yu extra la bëre jël yi kenn xalaatul woon ndax bu ñu nee Fils de Balla dajale na général Malika dajale góor soog rek loolu upp na ndar képp ñu gis combat yooyu mu ciy bëre lu am njariñ xeex bi wane ci xeex boo xamante ne dañ koy bàyyi xel waaye Lac ma ñu xamoon ci xeex xadar lagros bi mujj gisuñu ko ci moom Fils de nag doon mbër moo xamante ne nee na bu buñ na leen doon na roi des arènes waru laa bett ndax gëm-gëmam ak doxinam ak fugoom waaye da dajeeg mbër moo xamante ne ni man dama naan mbër la woon boo xamante ne ni kuñ ko musa a booleel rek say mbokk bàyyi nañ ko xel waaye lagros bi mujj lagros bi ñëwaat waaye combat bi mu jëlaat. moo tax ngay gëm ni sañ-sañu lagros ba tey mu ngi ci moom bu ñu la nee mënoo daan Quench ak na nga ca génnee nga ne jox leen ma fils de damay wone sama bopp kon Lac Rose mu ngi am gëm-gëm ni tey damay téye làmb te bu nee day téye làmb xel war na cee mën a dal ndax wane woon na boppam macha allah ndax defe naa ne kuñ ne bëri nga ak Sa gër bëri nga ak Garga 2 daan na fi champion yoo xam bu ñu leen doon lim tey du jeex lagros Rose nekkoon yaakaari fas tey mu ne waat dama leen koy delloo gël tàppe Fass Médina Grand Dakar ñaari tali benn tali ñëpp fas yéene koo gunge mu war a janoog Fils de Balla wan ni li weesu woon weesu na dimaas lañ ci xam dara la 14 ñu wan lu mu jékki gëtëm waaye man damay bàyyi xel tuuti rek ak yéen ñiy seetaan ñu waxtaanee ko mooy lagros Rose de Balla mi ngeen mujjee gis wax naa ko waxaat ko te dama koy waxaat mooy tey suñ doon joxe favori Fils de Balla la ñuy jox. ndax ku daan général Malika daan Goro Sock ak sorti Lagros mu mujjee def bu ñu waxee làmb taarixu làmb Fils de Balla moo nekk favori donte Lagros amoon na fi tour avant Fils de Balla waaye da ngay xool li Lagros ñëwaatee. man nag dama daan Lagros sañ-sañ ba mu am ak ci combat yi mu jógee ñu naan Lagros ndax mu ngi fi mu jël Fils de Balla mi toll ci dynamique gu os pour wane ni dama war a xataraayu dugg ci VIP yi sañ-sañ boobu fan la ko Lagros teg. sañ boobu Lac Rose am Fils de Balla am fitu ne naa tàllal loxo Lac Rose garaawul dafay bokk ci sama carrière ndax Fils de Balla yaa ngi bàyyi xel loolu retouram bi mu am gëm-gëm ni yow lay dajal kon nag na kenn ku nekk xool démb yi lagros ak tayu Fils de Balla ci jamono sañ démb gis naa Fils de Balla ci open press am Lac xamaguñu nag dana open press gis nañ ko bërki démb répétition bàkkoom mu ànd ak ay naataangoom ay magam ay xaritam Gris Bordeaux Forza Serigne Ndiaye Pape Ndoye rakkam Gris 2 général gis nañ ñooñu ñëpp waaye Fils de Balla tamit dañoo gis masse bu rëy bu géej waaye def ànd ak moom Balla Gaye 2 ñëw ne du des gannaaw Sa Thiès a ngi yóbbante ay wooteem Lirou Diane monument ne du bàyyi caatu Daouda Fall Mathieu ndigal booy oos yooyu gis nañ leen ci ginnaaw Fils de Balla waaye Fils de Balla tamit gis nañ ko muy. dégager chaleur boo xamante ne ci énergie ah gisaguñu Lac Rose en 100 pour cent wala ni ñu ko ni ñu gisee Fils de Balla giseeguñ ko lagros waaye jàpp naa ne làmb ju neex lay doon man Galaye baa Bamba nag dama naan dóor mu daanu duma ci bett ndax ñaari mbëru sañ-sañ lañu kii mën xeexu kor lool muy Lac Rose kii mën direct te su ma doon wax Fils de Balla dama ko daan nañu am ay distance ndax bu ñu xoolee jamono ji ay loxoy Fils de Balla moo gën a xor wala moo gën a nangu lagros dama ko naan mu def combat rapproché bërët mu jàppante Fils de Balla indi kor xool ba xam kon dóor mu daan bu mu ci betti kenn waaye jëlli wëlbët gàng bu doy war yaakaar nañ ko ci ndax combat boo xamante ne ñaari xale yi am sañ-sañ lañu ñaari xale yi am gëm-gëm ñaari xale yi am passion lagros Rose li ma dig Fass dama leen koy delloo si ñu xam ni maa ngi fi fils de Balla ne man damaa bëgg a yegg fi ñu mbëri yi yegg ndax ba war naa doon roi des arènes su xoolee jëmmam abiyaasam rek kon xadar boobu dimaas defe naa ni làmbi xadar la kon di la boo xamante ne ni mbër war na caa bàyyi xel waaye nag mustafa Kanja dama koy wax jaajëf di ko wax ni Moustapha dama bëgg nga indil ñu tengaada ba faaru mbaab ba tubéy bu ñuul ba tig tig ya kaan ba nga daan yor ñu gis Moustapha kànj ci biir géew bi ndax noonu nga ko daan defee kon Moustapha gàcce ngaa laa la lay wax ci combat bi nga décroché donte sa retour ci làmb ni nga ko defee ku ne xam na ni amateur nga promoteur nga bu xam làmb ndax lii nga delloo si àndaat ak ñoom ñëw ci làmb donte mosoo bàyyi làmb yaa ngi def esponsor macha allah kon tey ETD bu ñëwaatee Moustapha décroché ñaari xale yi kon Moustapha ndekete nelewoo waaye Fils de Balla Lac Rose da ngeen di bëri combat bu mën a ibbi lu ne. Lagros génn ci Fils de Balla Lagros kenn dootu la bañ dal la naan yokkaatal entraînement yi xam ne fi nga jëm a gën a diis donte mosoo bàyyeeku tolof tolof nag ku ne lay dal waaye Fils de Balla bu daanee Lagros sañ na taxaw ni jeexal naa su may moroom waaw ndax ku jóge ci général Malika daan góor soog ñu wax ñu ne Lagros kon defe naa ne Fils de Balla su génnee ci combat bi keneen mënatu ko bañ kon nan xam ni cercle VIP bi ñuy wax wala mbër yi fi des ku si mel ni Sa Thiès Reug Reug François Gomis. Euh, ak l'autre ñu ci bari nañ bàyyi xel ni làmb ji góor a soog bu euh, Fils de Balla génnee ci lagros kenn mënatu koo bañ kon ndaanaan la boo xamante ne ni dañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax du ñu bàyyi nag ba bés boo wala ñu dem ba tollu ca ñaan Fils de nañ ko bàyyi xel déedéet su génnee ci kombaa bii day taxaw foofu kenn mënatu koo bañ ci kuréel boobu wala ku ko bañ dañ koo ragal man maa ko wax ndax gis nañu combat yu danse yi mu bëree ak na mu ko bëree. ku nekk nam la daanee bokkul ak na mu daanee sa morom kon Fils de Balla na ko làmb bàyyi xel donte mosuñu koo génnee ci xel yi waaye Lac Rose it bu dellusee génn ci Fils de Balla kenn mënatu koo bañ. léegi nag dañuy waxtaanee li nga xamante ni moo fi nekk te di leen bàyyi ak seen xalaat yéen suñu mbokk internet yi waaye képp ku ko galaay taalibe Bamba rek na ko xaar ci dakaar Média ndax ñoo ngi ñëw te kenn du bàyyi ndax lañu doon def la ñuy làbbaliwaat dañuy naanaat ci ndaali rek. taxal ko ba mu tax ripp ki xaaxaam fas yéene nekkaat ak yéen du ñu bàyyi du ñu xàddi ndax yéen rek lañuy bëggee bégee ñun waa. internet bi moo ñu moom te ci ci la ñuy nekk ak yéen di leen sant di leen gërëm di wax ni leen indiloon tey ci Fils de Balla la Rose ci yeneen i combat noo ngi ciy ñëw ndax combat yi neexam suñu kanam ku mel ni ñaabu ndaw Zarko ñu ngi koy bàyyi xel ak yeneen lamb yu war a ñëw pour surprise Moustapha euh, Modou Lo ñu ngi xaar sa prochain combat combat wu jànq nag lañ ci yaakaar ñii ñu ngi naan Tapha Tine ñii ñu ngi naan Reug Reug ñii ñu ngi naan Sa waaye man su ma sañoon te tëgg wala ma am ba damay def Modou Lo Tapha Tine ndax la boo xamante ne ni kenn koo bëre jànq bi su ma juumul dafa attin ñaari VIP yi la bëree lagul Modou Lo Gris Bordeaux te nee nañu bawal dafa nekk ci biir Medina actuellement combat boobu mun naa jafe waaye Modou Lo tafaatin mooy combat bi départ leen ci nag yéen promoteurs yi euh, euh, Makan Mbeng yaa ngi fi jàmbaar production yéen a ngi fi Lit Nicolas Enko yéen a ngi fi Fallou Ndiaye yéen a ngi fi Bawal production yéen a ngi fi maanaam promoteur yëpp a ngi fi kon nan àndandoo ñu xool combat jànq boobu man loolu ma gënal te yaakaar naa ni suñu mbokk internet yi loolu moo leen gënal bu wax ji jubee nag suñu borom la bu dëngee suñu jëmm yu xeebu yi lañ waaye nag Lac Rose Fils de Balla ku ci génn ci sa morom làmb bañatu la wala ku leen bañ danga leen ragal waaye retouru Lac Rose yi ma mujjee gis ak Fils de ni mu demee man nee naa Fils de Balla mooy favori ndax combat yi mu génnee wasalaam ba beneen yoon ci yeneen i jotaay ak dakaar Média nag Galaye Talibé Bamba ne leen fi dencal émission surprise yu doy waar Babacar ci xarala Thank you.